السلام عليكم ورحمة الله mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di am kontante nag bu baax a baax yëkkati kaddu yi may bëgg a yëkkati ngir jagleel ko suma askan ngir jagleel ko sumay xarit sumay mbokk ngir jagleel ko militante ak militant force citoyenne ak ñëpp ñi nga xamantene ay sympathisants lañu ak ay nit ñu am ciofel lañu ci sama jëm ju xébu ji di wax ne namon ngeen ma won ngeen mako waye man ma leen raw lu fuf fuf fuf jamono yi nag dama nekkul Sénégal loolu mo waral xeyna tek te karal gi ak géej dégg di ngeen ma gëj dégg waaye lu jëmm ci sore sore xol bi ak xel mi moom lépp mu ngi ci seen wet mu ngi biir Sénégal suba ak ngoon ku dégg bëccëg di topp li xew di bàyyi xel ci mbébét yi soxla yi ak jafe-jafe yi di euh, biral ay kaddu rek comme niñ koy defee saa su nekk lu jamono tolloo fenn fi ñu jàpp ni sunu jëm yu xeeb ñaar ba ñett nit ñu ñuy déglu xëy soxla nañu sunu xalaat ñu yëkkati ko ngir euh, ak yéen jamono ji tolof tolof yi Sénégal donc ay ay ay compassion par rapport ak li domaine yu bari suñu mbokk yaa koy dund ci biir Sénégal bu loolu weesoo mbokk yi bis bu yàlla sàkk dina am jëmm benn wala ñaar wala ay fukk ci ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi laajte fan la Maimouna Bousso nekk ak ci lu mu nekk loolu nekk xam leen ni sore na lool ci sama xol parce dafay wane cofeel bi ngeen am ci man ndaxte ko yéenewul jàmm doo ko lijjante doo set ci lu mu nekk bu doon sama sago lépp lu may def ngeen di ko yëg di ko fekke di ko bokk ak yéen ñi xëy na loolu dadu jàppandi waaye xam leen rek ne xalaat bu ngeen ma xalaat rek maa ngi leen di xalaat xalaat bu ko ëpp ndaxte bëgg naa leen wóolu naa leen te itam soxla naa leen te maa ngi jot itam ñaan yi jot yéene Euh, di wax rek ne mbokk yi ñun de mouvement bi ma jiite di tudd force citoyenne ak Sénégal gi ñu bokk kenn ku nekk si ñun xam na lan mooy suñu engagement ci politiku Sénégal ndaxte du tey nag ànd bi yàgg na ay at ngi ñu ñu ngi ànd xam ngeen lan la ñuy yéene xam ngeen lan la ñu mat xam ngeen lan la ñu toll ñu àndoon fi nag. ci ay xeex yi paase 2012 ba léegi ñu ànd di jóge ki daan am lu ñu bëgg muy changer régime bi fi nekkoon te duma doy la ci di leen gàcce ngaalaamal gàcce ngaalaamal askanu Sénégal parce que yéen la rek yéen ñu gunge bu ñu wootee ngeen wuyu bu ñu taxawee bu ñu tourné gis leen ci suñu ginnaaw ba ñu laajee itam ngeen taxaw samp voteel ñu gunge ñu dooleel ñu sotle ñu ba tey ñu am ndam li kon toujours damay delloowaat ndam li ci yéen di leen gàcce ngaalaamal ndaxte nag coow li bare na mais li ñu def yombul waaye di leen wax ne mbokk yi loolu ñu defoon te daj ko ak yi paase muy buntu xataal muy tolof tolof muy xeex muy dóor muy tëj kaso muy reye muy ñàkk suñu liggéey muy ñàkk suñuy alal muy façon nous bu nekk waaye ñu taxaw tem ba egg fi jëm fal président de la république bu bees dugal ko ci palais jox ko pouvoir mu mën décider loolu nag dafa am lu ci manqué ci manqué mooy jox nañ ko doole jox ko pouvoir jox ko sañ-sañ mu soxla ay kaddu yoo xamante ne ñooy mën a tënk ay projet de loi ba nga xam ni xalaatam ak yéeneem dina mën a mottali loolu mooy lii di ñëw ci suñu kanam muy assemblée ku nekk nag di ci laaj suñu taxawaay lu mu war a doon ñu leen di wax rek taxawaay bi moom mënta doon lu dul taxawaayu ngor mënta doon lu dul taxawaayu kóllëre mënta doon lu dul taxawaayu continuité ndaxte nag dara mënu fee changé ndax xam nañu li ñu daj xam nañu fi ñu jóge xam nañu lum ñu jaraloon ak njëg giñ ko fayee mu njëg lu cher ndax ay bakkan dañu ci kon loolu yëpp bu ñu ko defee ñu ñëw ba ñu war a tabb ay député yu war a matérialiser liggéey boobu député yu nga xam ne ñoom ñoo war a doon kuddu bi président de la république war a tibbee ngir mu bañ a lakk ngir mu mën a mottali ngir mu mën a matal bu ñu demee ba tollu ci député yooyu sunu yéene ci yéen ëpp na présenter list sunu yéene ci yéen ëpp na taxaw laaj leen ngeen boole ñu ci ndaw yooyu ndaxte 2022 fàtte xaju fi amoon nañu yéene dem assemblée nationale

am reconnaissance suñu askan loolu mooy suñu fay mooy suñu payoor ba ñu ngeen ñu waxee dam leen ngeen dem yeewi askan wi dañu ko def mbokk yi diñ ci am am nii ñu ànd ak ci kóolute taxaw ba ngeen jox ñu li ngeen ñu jox xeebuñu ko nag waaye tey jii taxawaay bi ñu wara a mën a taxawee te muy taxawaayu continuité muy mbokk yi naka la nit di xeexee ba fal président de la république mu metti lool tey nga wëlbatiku defi liste jàkkaarloog moom loolu de foog naa ku leen ko waxoon guddi sax war ngeen xam ni euh, jëmm jii di may mën a busu du ko def war ngeen xam ni ñi ñu àndal ci force citoyen duñ ko def war ngeen xam ni képp ku nekk suñu mbokk wala suñu kóllëre dooñu ci dooñu ci puus parce que nag loolu wuyoowul ak suñuy valeur wuyoowul ak suñu ay ak suñu ay principe ndax dañu jàpp ne li gën a jafe jàll jàll na li ci des étape la bu ñu war a mottale kon nag sunu taxawaay mooy nekk nekk ci wetu coalition bi nga xamante ne moom mooy egg au pouvoir indi le président Bassirou Diomaye Faye amaana sax am na ñu koy woowee liste Pastef waaw liste parti Pastef te foog naa justifier nañu lan moo war a mën a tax liste boobu tudd Pastef xamaguma ci nag lu bari ah xëy na fan yi dinañ ci leeral ba xam naka la liste boobu di tëddee waaye li ma ci mën a xam rek di leen ko wax mooy ngeen jàpp ni yéene ji ma amoon deux mille vingt deux ma sapp sama candidature même yéene ji laa amaat deux mille vingt quatre pour taxawal askanu Sénégal ci assemblée nationale yéene jooju dara wàññeekuwu ci te bu soobee yàlla fan yi di ñëw man ak ñi ma àndal suñuy candidature dinañ ko présenter ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu ay alliés muy le parti Pastef ngir ñu mën a xool ndax dina mën a nekk jàppandi ñu ànd ak ñoom ci mottali yéene jooju bu nekkee xayrul mooy suñu yéene mooy suñu bëgg-bëgg parce que nag euh, dañ ko fi xeex daf fi yàgg depuis 2012 ba léegi euh, suñu yéene la euh, ñu autoproclamé wu ay député du peuple te nag man def ngeen ma seen député ba pare loolu rek doy na ma ndaxte lu toll ni milliers de sénégalais euh, di la laaj di la soxla di la taataan di la gis naa li ngeen di dama koy gis bu ko dañ kon loolu foog satisfaction mënu ko gën a kawe mais dinañu mottali suñu candidature à la candidature à la candidature mooy euh, déposer suñu dossier hein fi nga xamante ne la ko ñëpp di déposer ba xam lu ci

ñooñu nañ des ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoo ci ñu tey te fekkewuñ ñu xool ci image yu ñooñu xool ci honneur yu ñooñu xool ci mémoire yu ñooñu ba tax ñu te xool suñu doxalin bañ a changé benn yoon yoon bi nga xamante ne moom nañu jëloon ba egg ko fii tey nag toll nañu ci ci pàndaw gi ñëpp bëgg nañu doon député loolu amul solo au contraire dafay wone dynamique Euh, euh, euh, état d'esprit sénégalais yi dafay woné itam ni taxaway bu nawlu ñëpp dañoo bëgg a bokk ci ñi nga taxaw ci e législature parce que am législature qualité dina législature projet de loi jël ci ay décision yo xamante dina Sénégal Sénégal décision yo xamante sénégalais yag ko xaar 1960 ba légui amna ni législature bi dina motali donc pour nit ñi di pour nit ñi di xex pour mëna djublu ci 15e législature bobu mbokk yi ci dara ñaaw ci itam dara ëpp ci itam ku nekk rek bu la bu matul itam la parce que nous, nit ku nekk do dund dul sa nit am luy yàlla nag moom mooy joxe mën na ko jaarale ci nit c'est normal parce que suñu borom bi du tëb joxe da koy jaarale ci ay doomu aadama waaye nañu jàpp ne bëgg-bëgg yooyu ñu bëgg waxta mën a kawe suñu taxawaay pour Sénégal ndaxte nit mënta soppeeku saa su nekk ndax ay soxla dafa taxaw waaye nag dama leen di jox rek ñaar ba ñett yóbbal mooy kàddu yi may dégg souvent muy jóg nañu gën a yaatal suñu ay dënn nañu xam ni tey ku won ginnaaw projet bi ñu ànd taxaw samp ko waroo Maimouna Bousso waroo le président de la république waroo Ousmane Sonko sénégalais yi nga ko def sénégalais yi nga jox ginnaaw sénégalais yi nga tournée parce que nag dangaa joxe loo xamante ne mooy moom moo nekk ci bunt bi li ci biir nga ne dama ci jël sama wàll kon kooku du ay xas muy sunu cër sunu diggante ak ku def loolu du ay xuloo muy sunu cër sunu diggante ak ku def loolu sunu cër mooy bàyyi ko ak sénégalais parce que defuñu ñu ko askan wi lañu ko def askan wi ñu doon rey askan wi ñu doon dóor askan wi ñu torturer askan woowu soxla jël majorité parlementaire askan boobu moom moo soxla am majorité ngir ay luwaawam ngir li nga xamante ne moo war jëm ci moom ci ay solution ñu mun ko teg mu mun cee jëfandikoo kon askan boobu ku jàpp ne tey dangaa war a xool sa ambition personnel dangaa war a xool sa agenda personnel dangaa war a yow jiital sa bopp dangaa war a jiital yow sa tur dangaa war a yow jiital yow sa avenir wala sa carrière politique nga teg askan wi de côté boo wëlbatiku ci kan ngay dem ci askan wi ngay dem kon nañu gën a wóolu suñu askan nañu gën a wóolu suñu bopp nañu war xam ne suñu askan gënoon na fee metti gënoon na fee metti mu sonn lool yorul ñaar dërëm yorul xaalis yorul jàmm dóor yeeg kaso yi ñépp ci biir kaso bi président Macky yor doole bu mës ta jox président de la république nervis yeeg gangster yi ñépp ci mbedd yi waaye askan wi dafa taxaw def benn say xam l'essentiel xam lan mooy soleil euh, utile jox ñu majorité ci premier tour mu nekk lu kon le même peuple moom moo fi devant nous nan leen jàkkaarloog askan wax ak moom a ak ci ku bëgg ak wut est en démocratie nit ku nekk am na droit ak sañ bëgg nit ku am na droit ak sañ wutali boppam nañu bàyyi képp ku bëgg dem

askan wi nga xamantene ne moom ne ci borom alal doy ci borom diplôme doy ci borom expérience doy la ci ni politique wa projet bi ñom lay jox euh, majorité damay tourner des virages 360 degrés ñi ngeen di woy tourner politique ñi amul expérience ci politique ñi mësta falu ñi ñu mësta dégg ñooñu ñom lañuy jox majorité askan bobu mbokk yi gëm naa ni am nañu maturité bu toll d'une jox majorité président de la république wëlbatiku di ko assemblée nationale te ñu xam bu jot assemblée nationale du liggéey te ñu xam ne ñu bare ñu jàkkaarloog président tey liste majoritaire jàkkaarloowu ak moom ngir rek ay principe ak politique mais dañoo jàkkaarloog moom ngir tere ko liggéey dañoo jàkkaarloog moom ngir téye loxoom ngir ne ko doo fi defee doo fi dindee askanu Sénégal am nañu maturité ba tax na loolu duñ ko nangu kon nañ leen delluwaat ci askan wi sama njabootu patriote yi nag ndaxte patriote dafa yaatu am na ñu tudd patriote bokk parti bi ñuy wax Pastef di suñuy allié wante am na ñu nekk ay patriote tamit te bokk benn parti ci Sénégal lañu bokk mais dañoo bokk bëgg-bëgg ndax Sénégal lañu bokk sama mbokku patriote yi sama njabootu patriote yi nag c'est normal toujours dañuy nekk au front toujours dañuy bëgg euh, taxawal seen xalaat mais suñuy xalaat nañ ko def ci lu ñuy construire nañ ko def ci suñu ci suñu soxla parce que c'est pas le moment ñu perdre suñu temps ci wax ci ma Masamba wax ci ma Mademba loolu war nañ ko dépasser parce que yàlla moo dogal ñu doon wut ba ñu jox ñu yàlla moo dogal ñu xeex ba tey xeex dakk na ba tey ñëpp am jàmm ku mu neex xëy suba ba ngoon wax lu la neex dara du la ci fekk kon nag bu ñu ba foofu bu ñu ba am nañu li nga vers l'essentiel nañu jublu ci sunu projet nañu ci la construction la matérialisation du projet loolu lay invité kenn ku nekk di leen ñaanaat ngeen euh, bañ a euh, xaste ci ci euh, ku and ak kan kan moko sañ kan Moko Salu, ku Ousmane Sonko ku ko parce que demain, euh, fi quel fi Ousmane Sonko parce que du Ousmane Sonko mom moy solo yi euh, décision yi Sénégal mo soxla Sénégal le nit andalon mois de mars Sénégal le mini-Andalon, Sénégal le nit ñi taxaw temm sauvé Sénégal bob mon soxlawaat ku ko sauver.

ndaxte tey patriote yi man ñi ma ci mën a def ay député bare nañ ndaxte ñi ci am taxawaayu député bare nañ ndax député nag du leneen lu dul xeexal sa askan jëmmal sa askan di gindi sa askan te loolu bu mu naroon lim ay tur du jeex ñëpp mën nañu doon député ñëpp yi mat nañ ko ñëpp mérito nañ ko mais yàlla moo def lim bi di cent soixante cinq ñu ko weesu te on est des millions de Sénégalais kon nag ñëpp mënuñu ko doon mais nous en tout cas nous nga ne ñoo nekk ci alliance boobu ñoo nekk ci projet boobu ñoo nekk nous taxawaay bi ñun nañu xam lan mooy suñu nous nañu xam lan mooy suñu cër nañu xam ne nous suñu cër nekkul di xool suñu àndandoo le ak suñu àndandoo barki démb nekkul di xool ku nous sommes ak ku ñu nous n'est ñun xam nga lu nous amal solo ndax askan wi ñu ngi ci suñu de ndax askan am décision askan wi képp ñoo am décision ñoo am le premier et le dernier mot kon nañu wëlbatiku ci askan wi nañu continuer ci askan wi te ñu xam ne suñuy comportement askan wi da koy seetlu suñu doxalin askan wi da koy xool di ko xoolaat di xool est-ce que ñun mat nañu ñu jox ñu continuité loolooy wax ci nañ taxaw foofu xam naa ni nag ñun on est assez bagarreur nek nit ñoo xamantene on est passionné mais nañu éviter di def la publicité de liste adversaire nañu éviter itam di wax sur nos adversaires lu wara mëna tax sax ñu gën leen fessel ci kanamu askanu Sénégal ndax am na ñoo xam ne xëy na askan wi du leen bàyyi xel wala xëy na askan wi fàtte na leen wala xëy na barki démb donc askan wi wax na lu mu yéene ci ñoom mais ñun en faisant du matin au soir du wax ci du di wax ci Masamba di wax ci Mademba dañuy tax tax ba jël leen leen def leen ay alter ego te loolu mën naa ñàkk parce que fi combat amu fi combat amu fi sénégalais le lañ wutale ji woon jox leen un président les mêmes sénégalais ñoo soxla majorité parlementaire pour que le même président mën exécuté exécuter volontaire mën damay dégg dis ñenn ñi naan euh, ku jox euh, ma ku jox pouvoir de joxe majorité parlementaire loolu day fekk mu une opposition responsable unie comme nous ko nekkee woon temps yeewi askan eu bi L'opposition bi yépp booloo nekk benn say fas yéene woon jot majorité pour le président Macky Sall pour téye loxoom après 12 ans de règne pratiquement dix ans de règne du moins parce que 2002-2010 ba 2022 2012 ba 2022 waaye du léegi du opposition bii nga xamante ne dafa tasaaroo ay nit ñu musul ànd di ànd ay nit ñu amul euh, yu amul benn conviction yu leen boole di ànd ay nit ñu xuloo woon di ànd ay nit ñu xeexoon di ànd ay nit ñoo xamante ne ay noonu la ñu woon démb ak barki démb ay nit ñoo xamante ne politiquement lu ne yekkante nañ ko tey ñu wëlbati ko waar ànd sénégalais yi du def loolu loolu du opposition bu responsable d'opposition l'opposition, opposition opposition la bu sénégalais parce que moi, je suis démocrate dama bëgg démocratie Vous faites compte, dañu une opposition mûre cohérente je ne dirai aucun mot sur pourquoi pas donner la majorité à l'opposition même ne bëgg pas majoritaire en tant que parti au pouvoir parce que damay même si même si l'opposition est majoritaire n'empêche que dina am ay décision yo xamantene ay loi yo xam buñ ko wara jallalé l'opposition responsable dina ko voter mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ay Mergem, ay association de mercat ay association de nagn Fat Mer, ay association de vengeons-nous ay association de nagn len bolo takku barrer la route nañ leen tere liggéey buñ kan yàqaluñu président de la république yàqaluñu premier ministre askan wi la ñuy yàqal parce que askan wi moo dul mën a jëriñoo ci li nga xamante ne moom la gouvernement bi am yéene ci moom kon nag mbokk yi opposition boobu kenn du ko ñaanal majorité ndax que ñaanal ko majorité mooy sànq sénégalais te foog naa ne sénégalais yi ñu nangu ku leen sànq ndax am nañu maturité bu xam lan mooy seen njëriñ comme ni ñu waxoon rek ci présidentiel yi fii du élection wu naa bokk

ñu teg doole yi mën a téeñu yenu pan bii nga xamante ne duy nañ ko ba mu fees élection boobu la kon election boobu sénégalais dinañ xool ñan ñoo ci teer seen ambition ñan ñoo ci teer seen ay égo ak ñan ñoo ci taxaw di xëccoo ñan ñoo ci taxaw bëgg tere sénégalais ñu egg ci li nga xamante ne moom lañu bëgg donc maa ngi leen di jox rendez-vous amaana du yàgg tuuti ma dellusiwaat ci yéen dellusiwaat ci seen wet bokk ak yéen euh, xeex bi combat bi parce que xeexu Sénégal du jeex kenn ku nekk da ngay bay sa waar rek ba fa nga ca yem yàlla na yéex jox keneen mu mottali ndax tey ñu ngi yeew ak tiis bu metti muy gaañu Amadou Makhtar Mbow sunu waajur boobu ñu koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana ngeen gis mission bi mu def ci Sénégal ngeen gis taxawaay bi mu def ci Sénégal def ko nag ak sunu ay waajur yi bopp ñu ngi leen di ñaanal gudd fan. taxawal na Sénégal liggéeyal na ba tey mu wàcc am fi woy rafet am mujj bu rafet gis ne moom lu bari ci Sénégal ci lu baax dugal na ci loxoom ñun de ci tànk yooyu képp lañu bëgg a loolu kese lañu bëgg mu nekk ñu suñu woy bis bu yàlla ñëwee ci ñun yàlla yeex kon nag nañu continuer suñu taxawaay nañu continuer suñu don de soi pour la patrie suñu don de soi pour notre peuple parce que loolu mooy suñu wareef di ñaan di woo bépp sympathisant bépp militant bépp mbok, bépp xarit bépp am di jàmm di leen wax ne c'est pas parce que gisu leen Maimouna Bousso ci ministre yi gisu leen ko ci directrice yi gisu leen ko ci agence nam naam sax seen yéene la nam xam ngeen ni mérito na c'est pas parce que loolu yëpp dafa tax que gé ngeen jàpp ni Maimouna Bousso du continuer ci yoon bi mu nekkoon démb ak barki démb kon na gunge bi ngeen ma gunge woon tey laa ko gën a soxla jàppale bi ngeen ma jàppale won tay ji la ko gëna safo tay ji la ko gëna soxla tay la bëgg ngeen dooleel ma tay la bëgg ngeen ànd ak man ànd ak mouvance présidentielle ànd ak man ànd ak liste bi nga xamantene ci fan yi néew dina ñëw présenter leen ko wax leen touram wax leen jëminam wax leen programme am allah rabbi kon nak ngeen xamni rek euh yoon ndox du bàyyi yoonam

lu waay di mer munu fi nekk lu waay di ko di ko naqari munu fi nekk injustice nag mën na am injustice dafa am ci lépp nit mun na dund injustice mais li tax mënta metti li tax nit munu ci jëfandikoo ba changer taxawaay mooy dañuy xool ñi nga xam ni ñoom ñoo faatu ñoom ñoo fekkewul ñoom ñoo dëddu ñoom ñoo dul jëriñu ñi nga xam ne ñoo dul nekk député te pourtant ñoom ñoo tax lii yépp am tey kon ku xalaat ñooñu ku xool ñooñu lu la metti nga war koo mën a bàyyi lu la naqari nga war koo mën a teg côté candidat à la candidature maa ngi ñaanal ñëpp yàlla dimbale leen yàlla may leen ku nekk ci ñoom te yéene yàlla mottali la ko bu dee mooy li la jik ak mooy lu jik réew mi ñi ci nangul incha allah dinañ leen gis ñi bokk liste liste yi ñi ci bañal itam na ngeen gën a takku na ngeen gën a ngemb na ngeen xam ni c'est normal ngeen bëgg c'est normal ngeen am frustration buñ leen ko bañalee mais na ngeen gën a ànd liggéey gën a ànd liggéey xam ni le temps n'est pas encore venu pour les divisions c'est trop tôt parce que heure bu ñu toogee ñu divisé wu heure bu ñu toogee ñun ñi àndoon def benn say xeex ba egg fii heure bu ñu toogee di xeex wala di xuloo ci suñu biir rek ñoo ngi trahir la mémoire de ces braves personnes qui sont pas là aujourd'hui donc faisons attention à ça et ñu def attention aussi à tous les gens qui ne demandent que ça tous ces gens qui n'attendent qu'une chose divisions, moins division nos suñu moins sous nos rires, moins le fait de dire Dieu a Dieu ñu ngi nous avons bouteilles, nous ñu ngi Nous éviter parce que sénégalais le peuple a besoin de paix et de stabilité stabilité faire. nous may Nous adversité politique combat d'idées